jëfe woon loolu yar ñu loolu loolu la xam tey jël ko sunu soppe Cheikh Samb dem na ragaloon ku ko loolu seen seede loolu sombu dem na noonu. daan booy fetal daan dem na noonu. baayu bëkkër yi baayu Cheikh Tidiane baayu Tayir dem na noonu. te li jël ko sunu soppe dem na noonu. daan jëllale Sambu baayu Daba Sambu baayu Xadi Sambu dem na noonu. sunu soppe bàyyu bakari dem na noonu sëriñ Abdu ne Seex Sàmb xandooru damu ci wàlla gëm loolu bàyyi xel lool sëriñ Abdu sunu soppe di jël ko sunu soppe ji Seex dem na noonu sëriñ Abdu ne Seex Sàmb xandooru damu ci wàlla bàyyu ak njuufóor mbaa ñu xadi dem na noonu delli jël ko Sambu ñi may wula ko sant bàyyi Xadi Sambu bàyyi Daba bàyyi Papa Gueye dem na noonu nanu soppe soppe ansaar dem na noonu alaaji mor samb baayam moo ko wan rasulillah ma badara moo ko soppe ansaar dem na noonu. waaw dellu jël fa sunu soppe. sunu baay ba dem na noonu. dellu jël fa soppe. sunu baay ba dem na noonu.